réduction euh, prix denrées yi aussi on l'a annoncé depuis ñaata jours euh, tey la entrée en vigueur euh, ils ont mis beaucoup d'argent pour rendre ça possible mm-hmm. euh, foofu aussi naka naka naka nga mais il faut faire attention avec la vérité des prix mm-hmm. parce que tu sais au Sénégal on parle beaucoup de prix par exemple quand tu prends aujourd'hui le pain les meuniers là c'est des entreprises industrielles ils ont été les premiers à dire non c'est-à-dire que chacun parce que entreprise bi utiliser cent personnes ak entreprise bi utiliser cinquante personnes ak entreprise bi utiliser deux cent personnes du benn mm-hmm. donc il faut faire très attention la seule mesure salutaire gisoon ci loolu man mm-hmm. mooy ni que il fallait faire une subvention directe au boulanger à partir du prix existant mm. agir directement chez les boulangers maanaam boulanger duñu ko yëg mais état moom mooy moom moo koy kii voilà moo koy endossé une subvention directe sur euh, sur sur les boulangeries. Mmh, mhm, mmh. de fait que tu vas baisser le prix autant que tu voudras. Ouais, c'est c'est une possibilité. Mhm, mhm. mais pas attaquer l'autre aspect de de, la question comme ça parce que ku si nekk ay say charges ku si nekk ak sa ay liggéey li ngay li ngay li ngay li ngay gàddu. bokkul yemuñu. donc mënoo am foofu vérité des prix bu toll bu def nii parce que seen télé bi am na lu mu wuteeg seen beneen télé. c' est pas ça veut pas dire que charge télé bi ak charge télé bale ñoo yem ça veut dire que loolu raisonnement réductrice la il faut qu'on fasse attention mais seen seen seen maanaam ñàkk xam la ni ñuy doxalee wala ils sont obligés de le faire parce que ils ont beaucoup promis bi ñu nekkee dans l'opposition dégg li ma la wax ci njëlbeen bi nee la la fidélité c'est pour les sentiments parce que bu fekkee da ngay wax nit ñi dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii pour rester à ce de part tes sentiments tu vas agir alors que l'état c'est la rigueur mm-hmm. loolu daal dañ bëgg a wax ci njëlbeen bi moi je te donne par exemple l'exemple du du du prix du gasoil tu sais que sur chaque litre de super essence qui coûte neuf cent quatre-vingt-dix francs mm-hmm. il y a cent quatre quinze francs de taxes waaw sur chaque neuf cent quatre vingt dix francs il y a quatre cent quatre vingt quinze francs de taxe. c'est-à-dire c'est ce qui explique que bu gën a cher gën a yomb. sur région bi alors que fii lay jaar of course bien sûr. Mhm. loolu moo tax mu gën a cher. alors ces taxes là aujourd'hui boo ñëwee rek yow nga ne da ngay dindi da ngay da ngay subvention da ngay wàññi coût prix carburant bi tu vas toucher à quoi tu vas toucher à ces taxes là. Mhm. non moi je vais aider ce régime là. Mhm. non parce que am na yoo xamante ni dafa dafa impossible. il faut que ñu wax sénégalais yi mënta nekk léegi. Ah, le tenir un de vérité. oui il faut rétablir les équilibres. maanaam li ñu tàmbali nii jàpp nga du dem kon. non gaw ma ko man gaw ma ko man gaw ma ko parce que fluctuation marché bi maitriser woo ko yow. waaw Ousmane Sonko l'a reconnu. waaw y a d'autres mécanismes utiliser peut-être pour créer des conditions. de la réduction des prix à l'intérieur du pays. Mhm. Mais cela, cela demande une concertation, cela demande une négociation, cela demande une réorganisation de certaines structures étatiques pour pouvoir arriver à un point où di nga mën a casser les prix.